téléspectateur KN TV mekk internet yi am baax di ñu topp di ñu suivre à chaque fois ñuy dugg yéen li nga xamante ni moo di information yi tey nag dañoo ñëwoon fi nga xamante ni moo di yëmbal di quartier Daaru Salaam 6 ñu déggee woon fi benn jiyee boo xam ne ku ñu rey la donc ñu ñëwoon indi leen li nga xamante ni moo di xibaar yi fi am wala ñu toppee ñu dugg ak yéen ci askan wi laaj leen li nga xamante ni moo fi jot a xew nan lañ ko gisee ak nan lañ ko fexee ba xam ne am nañ ko ñu rey ci kër gi yaay booy ñu ngi lay nuyu. ngi leen di fay. tur bi ak sant bi. Seyna bu Gningue. Seyna bu Gningue. waaw. waaw ngay def si kii di Pape Diaw ki génn àdduna. ah ku génn àdduna de xanaa ku baax yaru danañ ko xamee ak daan doole da danañ ko xamee fii. bëgg xale yi ci kooñ bi bëgg mag ñeek respecté ñëpp waaw. ñi nga def jëf ju ñaaw ji amoo leen ci benn xalaat eh, ñan la war a mën a doon. ah déedéet amaguñ ci benn xalaat moom wax dëgg moom. waaw ndax dëggaguñ ci dara. Mhm. xamoo leen kenn kum joteeloon si koñ gi koñ bi wala amoon ak moom benn problème. déedéet ndax dëgguñu ko de. Mhm. ñi ko def jëf ju ñaaw ji fan lañ jaar ak mbir mi nu mu guddee nii ba mun a egg si biir ba def ko jëf ju ñaaw ji. ah xam naa ne dañoo tëb rek ndax miir bi dafa gudd. xam naa dañoo tëb rek. Mhm. waaw. boo amoon tey looy dénk gouvernement bi lan lay doon. gouvernement bi daal li ma koy dénk ñu jàppale ñu jàppale ñu bu baax ci sécurité bi ndax koñ nga amul benn sécurité xoolal fii yëpp ay kër yu kër yu ñuy toj la waaw ci lañuy ñuy dugg surtout ñun ñii di xëy fajar man jaakatu jën laa. waaw ay 3 heures du matin laa doon xëy. wante bu ñu agressé fii benn xale bu góor fii jamante ko. boobu laa ko bàyyi léegi 5 heures du matin laay xëy waaw. 5 heures du matin xëy ndax loolu kese waaw ndax itamitoo ay jigéen lañ de te itamitoo suñu jëkkër yi ñoo ñu gunge te tamitoo sa jëkkër bu la gungee ba di ñib si sa xel mu dal du dal yow mii dem. suba si booy liggéey ñoo la ñoo ñu gunge wante suñu xel du dal ndax mun nga ñoo gunge ba di ñib si ñu gatandu la waaw suñu xel daal du dal. waaw man daal li may ñaan président bi Diomaye fay nañu jàppale ngir yàlla te yàlla tax jàppale ñu may ñu sécurité dafa ñu pëtu làmp yi kër yi nga xam ne dañoo toj ñu dindi ko fi xool li ñu fi liggéey moo ñu gënal daal sécurité bi daal la ñu bëgg ñun waaw ngi lay jaajëfal. waaw kay yaboo ban information ngeen amaat ci li nga xamante ne moom mooy mbir yi ginnaaw bi ñu waxee démb ne faat nañ ko euh, police ñëw na gis nañ ko démb ci guddi ak li nga xamante ne moom mooy sapeur pompier amoon nañ jafe-jafe génnee corps bi ndax ñu ngi naan dafa lakk corps bi dañoo yàq bët yeeg lu ni mel waaye rek yéen xibaar ngeen xam ne amaat ngeen ko ci ci ci néew bi nga xamante ne kon euh, jamono yi ma nga ca ma nga woon ca ca loxol ca loxol sapeur pompier. waaw booba léegi moom wax dëgg moom ah loolu de la xale yi wax fii démb mooy ki ñoo seeloo zone suma rakk bi nee na ndax ñoom ñoo fi jiitu nee nañ daal boti daal dañu ko lii daal waaw boobu ba léegi nag déggaatuñ ci dara waaw comme que yoon a ngi dox euh, liggéeyam ah xanaa ñu sukkandiku foofu rek xaar liñ résultat yi waaw loolu da lañuy xaar ni mus na fee am ah? lu ni am ci gox bi ah man de fii laa yaroo waaw fii laa yaroo ci kooñ bi wante bu leet dem bu mësu fee am ay agresseur daal dina fi am daal ak sàcc yeeg yooyu wante rey nit mosu fee am tooñ bii wax dëgg moom fii laa màggee fii laa amee ci kan wante mosu fee am waaw yéen yéen ñi nga xamante ne yéen a yor njaboot rawatina ñuy góor ku ne xam na ne góor am na foo xam ne bu fa tollee dina dox ba yenn heure yi du tëdd waxtu dina génn heure bu ko neex ndax fi mu ne nii nag seen fit yi toogati na ci li nga xamante ne yéen a ngi koy gis waa suñu fit yi moom mosul toog moom wax dëgg moom suñu fit yi mosul toog chaque jour suñu xale yi suñu xale góor bu ñu demee ànd ak seen i morom yi dem ngonali ji bu ñib see man mii damay wax chaque jour di naan yéen heure bii ngeen di dox bàyyi leen ko agresseur dañoo bari ci dëkk bi toog leen bu ngeen demee ba 10 heures nga ñib si parce que xam nga xale yu góor yi waaw dañuy dem seen morom yi teg seen i attaaya di waxtaan ak yooyu waa yaay ban message ngay lancé rek euh, ci ñi nga xamante ne euh, mën nga leen sensibiliser ngir yu mel nii ñu mën cee taxaw muy autorité yi nga xamante ne ñoo fi nekk parce sa biir wax léegi yaa ngi wax euh, lën lëndëm bi nga xamante ne mi ngi fi kër yi nga xamante ne da seeni borom dañ fi dëkkoon ba ndox mi nangu ko ñëpp yàqu mais ba tey dafa fees dell ak ay ñax mu mel ne defkatu ñaawteef fi mën nañ ci laakatu mais liñ fi gën a nemmeeku nag mooy lëndëm bi surtout dafa lëndëm trop à partir de gée kenn du gisati kenn ci gox boo xamante ne mi ngi ci digg benn benn baraag daaru ba daaru salaam si lan ngay lan ngay wax ci ci autorités yi nga xamante ne ñu ngi fi. man daa autorité yi daal li ma leen di ñaan ñu dimbale nu rek dimbale ñu te yàlla tax jàppale ñu surtout monsieur le maire bi nañu jàppale ñu gëstuñu ndax lii tamitoo metti na ba ci kanam yàlla kër yëpp ay ñax la kër yëpp ay ñax la nañu ci jàppale xool ñu waa gëstuñu ndax tamitoo nu mu mënta mel ñu ñoo ko fi teg kon nag dafa war a ñoo dañoo war a ñëw xool jàppale ñu ndax gis nga depuis ba dem ba tey kenn gisuleen leen fi waaw depuis dem ba tey kenn gisu leen fi dañoo war a ñëw nag jàppale ñu ci loolu ci tabax yeeg yépp waaw yaa itam bëgg balaa ñuy jeexal suñu dernière question ban message ngay ngay lancé itam ñi nga xamante ne ñoom la cri euh, néew bi nekk ci seen loxo jamono ji muy wàllum yoon gis nañ fii ci réew mi ñu bëri euh, bu ñu faatee bakkan wala bu ñu leen faatee dañuy toog un mois deux mois ñu bàyyiwaat ka nga xamante ne moo def ñaawteef mu nekk si ay soxlaam ak lu ni mel. man daal li ma ciy lancé daal mooy lan ku dafa tir def ju ñaaw buñ la bàyyi waaw nañ la rey sax man président loolu laa koy ñaan na fi def loolu na saxal loolu ku rey nit ñu rey la waaw. bu ko defee dëkk bi xanaa léegi mu changé wante tamit nga rey nit ñu dugal la ca kaso ba 3 mois 4 mois 1 an ñu génne la keneen defaat ko waaw. man daal li may lancé daal nañ ci taxaw daal ku rey nit daal ñu rey la ndax rey bi léegi Sénégal dafa bari torop torop torop torop dafa bari torop te ñu koy def tekkiwuñu dara jàpp ñi nga xam ne tekki nañ di leen di rey waaw. ñu ngi lay jaajëfal yaay di leen masaw bu baax a baax jërë ngeen jëf. maman ñu lay nuyu. maa ngi leen di fay. ak sant bi. man Ndeye Maguette Diallo laa tudd. lan nga ci ki nga xam ne moo génn àdduna di Pape Diaw. Euh, Pape Diaw moom ñu koy wax Diaz man miinuma ko bu baax nag parce que man fii laa dëkkoon si côté baay bi nii su ma rombee yenn saa yi ma gis ko muy root ci pompe bi ma nuyoo dem. miinuma ko bu baax mais baax euh, baax gi mu baax ñëpp a koy ba ci xale yu ndaw yi sax parce que fii boo seetloo xale yi rek a fi taxaw parce que da leen manqué ndax xale moom xamul lu dul ki koy jëndal tàngal. génnee mu ngi foog xale yi mu ngi leen a jëndal mu ngi kaf ak ñoom di reetaan ak ñoom bu baax daal lañ xam si moom. bi nga déggee rey bi ak par rapport ak seen cité bi insécurité bi mu am lan nga lan nga réagir. damaa tiit wallaahi damaa tiit parce que man fii laa dëkkoon ci côté bi juste nii mais après damaa duggaat ci biir cité bi euh, te dama doon xëy 6 heures du matin ndax ragal sama moroom yëpp 4 heures la ñuy xëy mais man 6 heures laa doon xëy sama borom kër bu fi nekkee daf may sama doom bi tamit magul mag yooyu mais bañ ma bëggee agressif yi laa arrêté dematuma. démb affaire problème bi euh, rey bi fee la ma fekk si clinique bi nekk fii ci cité bi damaa tiit ba jóg taxaw fu mu toll nii suñu waa kër ñu ngi may woo nii gën nga téléphone mu ngi sonné mais tiitaange moo ma jàpp parce que nekkuñu ci sécurité dara nekkuñu ci sécurité suñuy doom yi nekkuñu ci sécurité fii yàqu na te pourtant yëmbal gi ñu baax fi dëkk fii ñu baax ñu correct ay liggéeykat ñoo fi dëkk mais ñaawtee fi ñu fi def yëpp ay wàll yaan lay doon ndax rey gii moom c'est la première fois dégg nañ fi agression dégg nañ fi sàcc lu nekk dégg nañ ko mais rey maa ngi doog a dégg fii suñu koñ ñun daanaka depuis euh, deux euh, mille neuf cent quatre-vingt-seize lañ fi toog si jóge Pikine ñëw fii waaye maa ngi doog doog a dégg rey fii Jémbal. est-ce gisuma ko gisuma ko ba ma ñëwee dama doon miir dem toog fee nit ñi démb li ñuy bëri yëpp damaa toog fii laa toog man xaw ma sax lu ma yëg damay dégg nit ñi di wax rek ma daw génn sama yaay ma foo jëm ma ne ko maa ngi ñëw daal di ñëw toog ndax tiitaange moo ma jàpp ndax nekkuñu sécurité suñuy doom yi nekkuñu sécurité fii lëndëm na làmp yi bëriwut suñuy doom yi ñu dañ leen defloo yoo xamante ni sax billaahi yow da ngay gis xale bu tuuti du am sa 10 ans ñu sexal ko morso ñoo xam ne dalay leer ñuy dëkkuñu fi nga wax ñu daggal a saaga gis nga fii ma toog nii ay 15 fii ma toog nii rek wallaahi mën naa bañ a nekk sax sécurité ndax dañ lay gis tey ne ah maire bi moo doon wax nangam naa ko def nangam boo jàllee sa fit bi du daal fii boo fi jàll nekkuñu daal ci sécurité pour te dire que nekkuñu ci sécurité waaw nekkuñu si jàmm daal. mu mel ni ñuy def agression beeg ñooñu yéen a bokkandoo dëkk ci même cité bi. non man ñooñu xawuma leen mais dama ne fii am nañu ñàng xawuma leen wax dëgg yàlla xawuma leen gisuma leen tamit mais daal dégg naa ne dugg nañ fii tëb rendi ko yaayam bu du woon yaayam sax xanaa dina fi yàgg ba yàqu comme ni ko libaas waxee nii ñoom ñooñu ñoo la ma a nettal mais man gisuma ko yëguma ko man damaa ragal ba ma demee orange money bi bay ñëw sax ambulance mu ngi gaari ndax ñàkk fem fu kër yi nga xamante ni seen borom buñ ko bëggatul nañ ko may am na ñu ko soxla wala ñu jaay ko wala ñu toj ko raser ko ñu xool luñ ko mën a def xale yi jàng si def ko ay daara mais tamit bàyyi nii kër yow nga dem tuxu feneen wàcc nii tamit ci ay tabax ak nit ñi di tuxu di fi dugg wala xale yi di sàcc di fi dugg wala ñu leen di jaayloo feeraay lu nekk nga fiy gis fii lu nekk nga fiy gis. lan nga xalaat mooy solution pour jëlee ko loolu. ah solution mooy ñu jàppale ñu mairie ñu jàppale ñu jàppale ñëw di xam wàcc si terrain bi di xam li xew fii. mais boo fi gisee maire tey balaa nga wala benn côté rek daf ko intéressé lay dugg dañoo war a dugg si fii di wàcc si terrain bi di xool dimbali suñu njaboot yi da ngay yóbbu fu mu nii kuy xëy da ngay jàpp sa loxo doom yóbbu ko ba école te amoo jot soo jaajee yaa ngi wàcc sama doom heure bi war heure bi war naa taali xaama dem taali sama doom war naa ko jëli xaama dem jëli ci ko lépp ci ñàkk sécurité nañu jàppale nañu jàppale fii yokk lamp yi leer suñu mënee dimbale ci ci am ay ay gardien fii ci koñ yi ñu amoon na ay jamono amoon nañ ay gardien mais jamono bi tolloon na foo xam ne métti na xeetu métti boo xamante ni nit ñi lu ñu lekk lañ tal amu doo yor sa benn cinquante mille da ngay jënd caméra surveillance sa ceeb war la diwlin yàlla jàng école doom war la nga ne da ngay dem uti gardien te yeneen war la nga bëgg sa doom tamit doon quelqu'un ëllëg ah nga bëgg jël sa benn cinquante bi di ko def foofu nañu dimbale nañu geestu yëmbal gi te ne yëmbal fu baax la ay nit ñu baax ñoo fi dëkk nit ñu set nit ñu am ambition ñoo fi dëkk dañuy xëy di liggéey ji ñu fiy def yenn yi nag dañ naan bien vrai que yëmbal Malia mais waa ville bi dañuy ñëw fii da ngay gis ñoo xam ne bu ne la ñii doomu diw la wala diw fe bërëb sàngam lañ dëkk doo ko gëm parce que lan doo leen foogee fii ñu ne yëmbal lañ dëkk fekk ñoom ñooy defkat yi mais du waa yëmbal waa yëmbal ay liggéeykat lañ ay daankat doole bëgg seen bopp ñoo fi nekk ñu set ñu civilisé nañ ñu geesu fii xool banlieue bi xool surtout yëmbal nañu dugg si koñ yi di wàcc si quartier yi Daaru li fi am nii mosu fee am mosu fee am wallaahi ah xanaa di ñaax yaay yi comme man rek ñu koy téye seen doom yi man sama doom bu góor démb si guddi rek ci mujj yaay yow man mag laa am naa 18 ans damaa war a di génn ma ne ko doo génn fii li fi xew are baay bi ba ma fi dëkkee ñoom maa génn sama papa feebar ñu minuit xale góor yi ñoom su ma demee defal ko mu lekk ba pare minuit damay dem kër ga xale góor yi ñoom bëgg nga ba sama kër ba ma dugg ba teg sama appartement ñuy doog a wàññeeku su ma xëyee damay demaat suñu kër mais ñàkk sécurité moo tax damaa dugg ba ci cité bi fii ci biir jege sama suñu waa kër moo tax ma duggaat ci biir ndax ñàkk sécurité bi nekk fii waaw ñun nag dañ gën a téye suñu doom tiit nañ nag tiit nañ ba fu tiit yam fii ma toog nii sa damaa tiit wallaahi fii ma toog damaa tiit ndax fii li fi nekk neexuma la dama lay rey la neexuma la wala ma boole la rey moo fi nekk man nag teg nañ lépp ci loxo yàlla. ñoom xaaruñu ko leen tooñ doo sekk ak ñoom dara da ngay yor lu ñu bëgg. fi ma dëkk fi ma leen ni dëkkoon am na ko xam dafa yóbbu doomam jàpp si loxo doomam man maa ngi xëy ay 8 may génn taseeg moom man ne lu xew fi ñu dañ ko agressé pompe à gaz dañ ko def bëccëgu ndarkaam 8 heures bu du woon kiy jaay soos ci tali bi noonu juste bu du woon kiy jaay soos tey nangu nañ téléphone am dañuy nañu ko pompe gaz dem bay nangu tam li muy miiree noonu rek kiy jaay soos jóge foofu ne ko diw xam naa la bàyyil ndeyu xale bi maa ngi jiitu bu ci saak bàyyil kii ne ko boo ko laa li nga xam mu daw dugg si ruq bi dem pour lan lépp ñàkk sécurité nañ bàyyi ñu liggéey ñun ay jigéen lañ dañuy liggéey daan suñu doole Euh, maire bi nañu dimbali. yu mel noonu dafay faral di am di ngeen police dénoncé ko woon. ñëw police dafiy dañoo xam heure gis nga démb ba fi policiers yi ñëwee taxawaalukat yu bëri doole fi gis koo xam ne kii da ko ragoon pour aw fi dootoo ko doo ko gis. parce que xam nañ ne tey police dafi police dafiy wàcc de mais ñoom danoo xam heure police te ku ci jàpp ñaari waaw dañu fiy wàcc dañ fiy wàcc man sama doom fu mu toll nii bu 22h jotee ba 23h ki ma lay wax nii yenn saa moom may gunge dama naan ko doo génn gis nga bu watoo sax yenn watu yi mën ne ko dindi ko parce que ngay gis dafa da ngay ragal da ragal tey jii police mën na ñëw ramasse ñi ñu war a ramasse duñu leen ramasse ñi ñu warta ramasse rek la ñuy ramasse nañ ñu jàppale dimbale ñu suñu njaboot yi tamit mënuñu leen jël di leen tënk mënuñu leen tëj ci kër yi ndax ay góor lañ nee nañ góor kenn du ko boole ki jigéen kese bu yàggeen mu doon leneen nañ ñu dimbali jàppale ñu sécurité bi gën a doy suñu koñ bii voilà mbokki téléspectateur KN TV comme niñ leen ko waxee woon rek gis ngeen ñu dugg nañ si askan bi laaj leen li li ngeen bu baax a baax mu nekk lu metti lu tiis lu dal ci ñu ngi sëngeemu donc mu nekk loo xamante ni nee na ñu ngi xaar justice ñëw def li nga xamante ni moo di liggéeyam indi ci ay leeral indi ci ay ginde ba xamante ni ki lañ fekk fii si biir poulailler bi rey ko def ko comme ginaar ñu daal si mën a xam kan moo jëf jëf ci bon ñu ngi ñaan aussi li nga xamante moo di autorité yi ñu dimbali leen jàppale leen ba defal leen ci seen koñ bi li nga xamante ni moo di làmp ndax nee nañ fii nag insécurité totale lañ fi dund lu nekk lañ fiy gis lu nekk lañ fiy dégg donc ñu ngi leen di wax ci beneen numéro incha allahu rabbi ngeen topp ñu suivre